Euh, sur la réplique euh, bi mu def au cadre Casamançais euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de de maladresse parce qu'il semblait dire euh, qu'il n'y a pas de collectif des cadres Casamançais voilà benn nit la. Euh, da ngaa weddi loolu affaire bi ëppul. da ngaa loolu. y a un collectif des cadres Casamançais. non mënoo réduire à une personne. et, et j'en connais hein, qui sont membres euh, de, ce, de, de, ce, de ce collectif-là. Euh, ce collectif-là ne se résume pas à Pierre Atepa euh, Boudjabi. Et ce collectif-là, en tant que euh, collectif des quatre Casamancés, il, il, ma, il, leur est ma, d'exiger politiquement des choses. Maïmouna, on leur dénie ce droit-là. Maïmouna, am na situation bu amee man de sama noonu lañ ma jàngalee noonu lañ ma yaree bu net bu benn affaire amee même bu fekkee ne ci télé nga nekk di jéem a pousser ma dem bu wax li ma war a wax am na yenn yi nga xam ne même noo koy indee danga koy war a indi gis nga collectif boobu vraiment dafa dem ba. waxuma amul kenn ku ci bokk de mais Atepa daf Atepa daf ko def instrument benn ci ay instrument am. ah waaw bàyyil ma ñëw rek xam nga dama laa may nga wax ba pare ci poser question may ma ma tontu Atepa collectif des cadres Casamance Atepa candidat à la présidentielle candidat législative soutien de Sonko euh, Atepa. Euh, on va faire l'analyse après mais on parle sur les faits président bu fi jiitu Sénégal ci Senghor ba léegi jàppale nga Atépa. mais c'est un Sénégalais. déglul non yu bari oui c'est comme tous les Sénégalais. porteur d'idées de développement. non rek may mun a il faut pas charrier dafa am ay alternance day am di fu nga bokk. ko wóor mu bokk ak yow. il est apolitique. il n'est pas apolitique. il est apolitique candidat il a voulu mais il n'est pas allé yi ñoo ko nanguwul te damaa defe ne danga may bàyyi ma wax parce que c'est c'est benn su yaa indi sujet bu nga xam ne dafa Atépa la ak président wax c'est important man bu ma fi toogee en tant que responsable politique ma wax ci. vas-y danga may bàyyi ma développer comme ni nga développer ba mu neex la. je suis tout... président dafa ne amul collectif boobu collectif des cadre bu exister depuis plus de vingt ans pour nga am légitimité di wax à ce collectif boobu di wax ne man maay collectif des cadres jàpp ma ne cadre Casamance yi ñu ngi foofu man jàpp ma loolu waxuma nekk amul ñu fa nekk mais dama ne cadre Casamance yi jàpp ma loolu day am day am bilan am loo def mais du toog rek boo yi solo intérêt Atepa topp na président dem na fële bëgg na am dara mu ne na def chantage élément de chantage la bu mu yootee et quand je disais que ne ku fi ñëw nekk naa yow da lay tarbiyu mbaa mu def la chantage les deux nag ne compte pas avec Macky ne marche pas avec Macky Sall doo ko tarbiyu mu nangul la doo ko tan chantage mu nangul la te déglul munoo tamit xam nga yow yaa fi wax ne soutenir na fi Sonko d' accord nañ ci loolu. non j' ai, j' ai pas man wax naa ko d' nañ ci. il a il a soutenu il est sympathisant xam nga kooku léegi bu waxee xam nga léegi bu ñëwee wax attaqué président noo wax ne du opposition. opposant au président mais demander la libération de Ousmane Sonko. non c'est attaquer Macky xam nga dégg non attendez xam nga libéra nañu wax ci libération Macky euh, Ousmane Sonko. fan la Macky Sall fan la Atepa ak les cadres Casamance ñi muy wax ak son collectif là parce que baxuma cadre Casamance yi. fan lañu nekkee ba Sonko di woo woote réew mi nañ ko taal di woote ne ses amis de la rébellion nañ ñibbi pourquoi wu ñu te boobu temps kooku dafa bëggoon rey taal Sénégal ban réew lañ nekk Sénégal Macky Sall dafa taxaw di ko liggéey xam nga à des moments bien déterminés ñu ñi dañoo defe ne woon réew mi dafa am fu mu toll day yàqu ñu taxaw gérer ko wane ne fii réew mi kenn Macky wax na ko dès le départ kenn du fi def lu la neex tant que mu ngi gérer réew mi ñuy wax appel dem di wax ne nañ ko libéré libéré fan na dem ne wax justice bi libéré ko non dañoo dañoo miser woon xam nga fi ñu toll nii. miser si kan. non déglu rek xam nga fi ñu toll nii Atepa li ma la wax chantage du marché xam nga ñoom dañuy ànd ak yow ànd ak yow ba benn moment. ñu commencé bu bu ñu jëmee élection ñu yaakaar ne condition alternance jeex na ñu ngarale ci ñaar ñëpp ngarale opposition ngarale pouvoir dañuy ngarale te fekk ne pendant toute la durée tant que àgguñu ci jëm ci élection doo leen dégg ñu kaas ngarale pour que après ku gañe rek ñu ne la ñu ne yow bokk Atepa ak méthode méthodam boobu dafa péri bi dañoo périmé dootul marché si sunu. di nguuru Macky Sall mais magistère li Atepa leen ko lu bari il a tout son business euh, à l'international. yow waxal waxal loolu waxal loolu. ah waxal loolu rek ndax jàppale wuñ ko à l'international. moom ci boppam am na période yu muy revendiquer fii kenn Macky Sall jàppale te ku te lu yàggul dara parce que Macky Sall la. ku ñëw ci moom buy sénégalais ñoom ñëpp jàppale nañ leen ñi fi yuuxu yëpp tey di woote ay ay statut ak bu mu mënti doon technocrate di ñëw di wax ci politique bi. mais xam nga moom moo jaaxal. pourquoi pourquoi vous êtes réfractaire à la critique. Atépa wax ñu ne waru fee. pourquoi tontu. Euh, Mamadou Lamine Loum euh, Aminata Touré Abdou Mbaye daf fi missive euh, di rappeler le respect de certains principes de droit euh, de bonne gouvernance ngeen dal seen kaw des intellectuels def tribune dénoncer un certain nombre d'égarements ngeen dal seen kaw pourquoi vous êtes réfractaire à la politique euh, euh, Maïmouna Maïmouna pourquoi vous refusez à ces intellectuels à la société civile le droit de vous critiquer oui pourquoi vous vous refusez pourquoi nga bañ ñu ak critiquer ñu ñun ñu critiquer ñu c'est normal mais pourquoi nga bañ tontu pourquoi ñu bañ ñu critiquer attitude ñi nga xam ne ñu ngi ñuy critiquer ci parti critique bi man li may wax ay fait kese la Atepa j'ai dit et sénégalais yëpp ñu may déglu bëgguma sax personnaliser lu bari mais j'ai dit méthode bi nga xam ne méthode la ne naa ŋarale naa chantage naa tarbiyu pour am dafa jeex Macky Sall daf ko jeexal ci Sénégal parce que Sénégal day màgg day yokk li marché woon ak yeneen président yi du am moom Atepa ku mu président bu nekk jàppale nga ko mais ku ko jàppale ba daanu dootul nekk dootu dootu dootoo nangu sax mu jege la am na noo koy jàppee loolu ñu avancé yeneen intellectuel yuy wax xam nga réew ni muy marché dafa war a am ay intellectuel ah yéen de déglu rek non non bàyyi lu ñu wax loolu. dafa amee dafa war a amee intellectuel <laughs> ah, xam nga intellectuel boo jëlee camp wu intellectuel mbaa nga jël kaawu wu société civile bu ci nekk camp bu ñu délimité la. crise bi ñu gën a betti bi ñu traversé Sénégal mooy sa gatsa appel à l'insurrection rey leen leen dem leen seen kër yi ngeen rey leen marché sur le palais génn leen moo bi gën a rëy ba ñu amee indépendance ba léegi sénégalais yi dañuy yeewu duñ ñemee génn ci mbedd yi parce que ay violence moo ci am ñu dem ba jël ay cocktail molotov sànni ko ci bus ay nit dee ci ay nit revendiqué ko jàppale ñu dee si ñu woote ne nos amis de la Casamance mu ngeen rentrer après que mu amee ma ay eh waaye ana intellectuel yu booba dañuy xaar ñu jàppaleen intellectuel te ñoom ñëpp xam nañ leen dañ leen a intellectuel ñu ci ay homme d'affaires xam nañ ne Macky Sall da leen jàppale homme d'affaires jàppale leen à chaque fois que mu war leen jàppale sans tenir compte de leur position politique ndax parce que tout simplement patriote la te ñoom amal nañu njëriñ Sénégal ci benn aspect mu leen di jàppale. élection jot ñu jëm élection nga xam ne dañoo war a nekk à l'écart bu ñuy analyser nañu analyser wax nu ñu leen def ñu yeewu ne dañuy critiquer te mosuñu critiquer kenn lu dul ci élection ba pare jeng. waxuñu benn yoon ci ñi ki ñu jàpp lu tax ñu jàpp ko li mu def ndax war na ko def am waru ko def waxuñu ci loolu yépp dara ak lu ñu nekk intérêt ay patriote mu naw leen ci bëri ci seeni position li ñu nekk ay homme d'affaires ay force vive amul ñu le droit justice sénégalaise jël décision rendre un jugement ñu ñëw ñu ci am position à partir de ce moment là te amul fenn fu ñu ko teg analyser wu ñu wax à partir de ce moment defe naa bu ñu yaroo kese yaru rek jox leen seen dayo war dañ leen wax grand mbaa monsieur un tel seetaatat sa xol ressaisirul jëlal du recul